ñan ñoy suñu ñaari wax ni réer ci chef Didier Badji mu àndoon ak ki ñuy naan Fulbert mu un sergent de l'armée mu doon ay bëgg a jur mu doon ay am am solo ci Sénégal parce que l'État la doon servir nous am am solo ci famille seeni njabot mais nous am am solo ci sunu askan. nit nous. yar nañu leen fañ yare nañ leen it fañ leen nous. tagat ni ku nan xamna bois sacré formation bu la koy amé avant muy génn dugg ci société bi yoyu valeur yanu fa jëlee mu doon lu ci ndencum secret yalla xam ni lepp luñ la fa ko ak sa soxna di nga dem du xam fa ay Jambar, parce que it armée nous ñaar ñooñu nos bokk ci service renseignement Les gendarmes Didier mu bokk ci inspection de la gendarmerie Fulbert mu un militaire également dans le renseignement alors ñaari corps yooyu du ku ne moo fay dugg naka lay ay soldats yu nga xamante danoo xareñ ba ñu dugal leen ci kooru stratégique mooy maanaam koor yu am am solo naka la ñuy mun réer volontairement maanaam jékki-jékki ne man damay réeral sama bopp loolu am na yaakaar ni xel waru ko mën a nangu réeral seen bopp depuis juróom benni fan ba waxtu gilee kenn mënu la wax loo xamante ne dalal na sab xel kan moo am intérêt ci Sénégal gile, di joxe ay information yoo xamante ne à longueur de journée et kooku di koy joxe ci lan la jublu ba muy joxe yooyu information ci lan la jublu sénégalais yépp la ñuy wax ñu redoubler de vigilance ku nekk na nga ubbi say bët ku nekk di doxe sab xel bu nu kenn génnee ci yoon wu ñu nekk bu ñu kenn distraire nañu taxaw tem comme benn nit ba keroog bi suñu mbokk yi di génn ñi sog a xam naka la di ci yokk ne suñu doom yooyu nekk ay sénégalais à mu am dëgg la ci askan ku ñu bokk ñun de duñu nangu wax dëgg yàlla ñi doon les agneaux du sacrifice